auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk noo ngi leen di nuyu di leen siyaare nu dikk ci addiyey murid noo ngi ci fukkeelu jotaay ak ñett ci xasida taxmis tey noo ngi tàmbale inni la imun wa rabbi akramul lawlaahu lam yuuli ni subhaanahu niama sëriñ bi daa wax ne man de ku tekkee di laa ku tekkee di waaye nag sama boroom moom moo gën a tedd ci ñi tedd ñépp bu dul woon ak ak mbaaxam dara ci xewal du yegsi ci man dëgg la man tekkee dinaa waaye yàlla moom it ku tedd la te ak mbaaxam dina tax du xool ni ma mel mukk ba dina ma jox ay xewal alaa aqulu liluhmi taiban wakima astaghfirullaha taadaadan nabaati wa ma fi lbahri min nicmatin wal barri min nicami ndax nag jotut ma daal tuub tuub gu ànd ak njàqare ci sama tekkee di gi daal di wax ne maa ngi jéggalu yàlla jéggalu yu bari lool ba toll ne limub mboolem gàncax yi ak limuk mboolem li nekk ci géej ci jéeri ji ci ay xéewal laqad xasintu wa rabbi arxamu raxama lawlaahu lam yaxfiril aafaama wallamama jàq na lool waaye nag sama borom moom mooy ki ëpp yërmande ci mboolem ñi yërëme te budul ak mbaaxam njëggalam du yegsi ci man du ma jégal sama bàkkaar yu mag ak yu ndaw man daal jàq naa lool waaye li ma mën a defal ci njaqare googu mooy xam gi ma xam ne yàlla ku bari ma yërmande la xam gi ma xam ne it ak mbaaxam dina tax lépp lu ma def ci bàkkaar mu jégal ma ko ala atuubu li husni qailan sadima astaghfirullah taadaada arriyaahi wa ma tajri alayhi min al awqaati wal qisami ndax nag duma tuubal yàlla ngir sama njàqare gii samay moy bari na samay bàkkaar bari sama xool tilim loolu di njàqare ako tiis ci man ndax nag duma ko tuubal yàlla daal di wax ne maa ngi jéggalu yàlla jéggalu yu bari ba toll ni limub mboolem ngelaw yi ak yi daw ci ngelaw yi lépp loo xam ne ngelaw ngelaw a koy dawal rek lim bu toll noonu ak limu ngelaw yépp ci waxtu yee xaaj yi yëpp maa ngi koy jéggalu yàlla maa ngi jéggalu yàlla loolu toll wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu